bëgg affaire puukare di fen di ci ay boîte di fay nit ñi ñu lay waxal di fay ñëpp di waxal dugg ci dem soirée di tàgg nit ñi jànge ñi jànge dara Serigne Saliou yal na yàlla fay seen xol amiin amiin yal na léegi nañ nañ génn foofu mais Pawlish dafa am loo xam ne ñëpp ñu ngi koy wax euh, mooy euh, ñu dugg ci li nga xam ne moo di album Wally Seck bi ñëpp ne nañ album bi dara dàqale waale dàqale non non album bi dara neexu ci loolu laa dégg waa lii loolu de loolu de da bëgg ma tontu la rek Pawlish album Wally Seck bi nee nañ benn son moo ci neex mooy clip bi mu ci génnee. non kon wéroo kon kon xamoo son bi neex waaye wayam bi yëpp da ci gaaruwaale na ci wax na soxlaam. kon gaaruwaale mooy lu neex. <laughs> ah déglu ma rek waykat léegi dañuy gaaruwaale. ah Pawlish euh, album album album Pape Diouf bi beneen affaire la. man li lay man album Wally laay déglu Pape nag ku mën a way la. waaw mais mais mais. Pawlish waaw xam nga dañuy waxtaan man soxor ma sama kilifa la sama xarit la sama grand la sama xarit la. Pape Diouf ku mën a way la ku baax la waaye man ki ma bëgg mooy kenn man waaye rek laa bëgg. moo tax nga nangul ko ne album bi neex na mais album bi neexul. Oh, oh, mu ne mu neex ak mu naqar la yàlla moo tax moo xew boo génnoon boo génnoon ki mas yi génn ay madaal génn toog ki di ko nekk ci benn morceau moom moom mu génn pataas pataas parce que moom la fi yàlla te star la. loolu génn kaseet yëpp xoolal boo duggee tiktok waaye da ngay gis. mais fii Youssou Ndour seen. mooy seen waaw kilifa la mooy yow boo dootu kilifa sunu papa la. amuñu droit wax ci moom lu ñaaw parce que suñu papa la loo gis ci moom lu ñaaw parce que naa droit wax ci kii ma xam muy Wally mu génne morceau boo xam ne àdduna bépp a koy déglu àdduna Sénégal yëpp a koy déglu kasetam bi xam ne daa way gaar waay na xas na waay wax na boppam wax na àddina wax na jaar-jaaram way na ko ñàkk waay na ko amul kii moo way waale way yow sax xam nga waalee way yow waaw waaw yow Pawlish amuloo léegi ci ñëwaat na kon daf ko dafa demoon. demoon na dafa sonn ñu. fu mu demoon fi mu nekkoon. fan fu ko saf. ñëwaat léegi woon lan moo ko indiwaat. dafa sonn. ñu ñëwaat ñëwaat na. ñëpp sonn ñëpp sonn lu ko sonaloon foofu. parce que tànk dafa xaroon fi fett tànk yi xar amoo dem ba dem ba commencé jaay ay ay jaay traitement amoo dem ba jaay ay xasum loora amoo dem ba sol yi xool sol tuba yi amoo dem ba wattu ndel amoo demoon na ba jeex ah, dafa feebaroon waaye jël yóbbu na ko hôpital dafa faj na ko. lan dafa amoon feebaru bii dafa fibrome waaye opéré na ko defar na ko suba dafa koy jox jox na ko oto bu rafet. kon oto bi muy dawal nii waaye Seck moo ko jox. waaw ko jënd jox ko. non non loolu mënul nekk mais. ñu doon ñu noonu lañ ñu doon ñu doon mën a xuloo. waale moo ko woowaat wala moom moo ñëw fekk si waale. boo boppam ñu waat ci boppam. bi mu ñëwee waale recevoir ko. waale soxoroon bu lépp ci payen la. kon fi mu ne nii daal amaroo mu waale Seck la ñuy wax. booy waxati looy boo ko waxee sax noo sant daan la Seck. kon bakken bi lépp jox na ko waale Seck. tànk yeeg nopp yeeg ween waaye am na ñu naan tôt ou tard mën na changé waat de. Omaro du Omaro du dem fenn Omaro amoo yaakaar te mu dem fenn li mu daj ci yoonam bi du demaat fenn Omaro dem na bay jaay ci mag yi. ah. déedéet kay. parce que alxuraan non dama ne jaay euh, bëccëg di jaay kew ñëwaat na fi mu war a ñëw bokkaat na fi war a bokk gisoo Omaro ni mu da nga gis ni fi mu ne nii Waly Seck moo waral leeraay. waaw parce que nit ñàkk loo ñàkk loo bëgg dafa metti ndeysaan dëgg la Omaro day joxe Omaro dina joxe bakkanam Omaro dina joxe tànkam Omaro dina joxe noppam Omaro dina joxe tëstanam Omaro dina joxe loo xalaat ci nit Omaro dina ko joxe Omaro demaat fenn ci àddinaam li mu daj te ñun dina mën a xuloo ay ay xulookat lañ mais daa juumoon nit day juum nit bu juumee nga xam dafa juum juumoon na. kon baal ngeen ko mais nag ni waa mais c'est normal. waaw léegi Mandiaye Seck moom baal ngeen ko sama nekkul ci moom. lu tax xaw ma lan la day fóor wala day jiro ga Mandiaye Seck. kaana kaala wala yow xanaa boo bëggee waaye Seck war nga xam ay mbokkam kooku lu xaritam la waaye xam ci mbokkam Ali Seck Mohamed Seck ñoo laa xam ci bi pardon waaw doo leen ma génneel photo ma Ndiaye Seck bu fekkee mën na nekk allez vas-y mais je mais je connais même pas dañuy karaté kaa wala football non wa wala ñuy way lu ñuy woy eko simba kii. clip bi mais clip bi xàmmee nga ko. kii kal daju. Pawlish <laughs> oh, sax dof-dof bi. mais wallaahi si je connais pas si je connais daju. mais yow xanaa waa suba teel ñoom dañ laa woo xëbal la ba munoo wax ci ñoom. mais parce que parce que Cheikh je je connais même pas wallaahi. Pawlish aussi fit daal. mais mais non non mais je je connais même pas day football wala day basket. fii waale ba muy way lii nii. texte waale waale mii laa xam nag ci ci kone waale. ak ah, kii taxaw ci waale Seck xamoo ko. kii ka Superman wala Rick non non Batman la. Batman la kon su ko kii loolu wala. <laughs> mais Pawlish yow soof nga ah. mais yow lan moo tax yow Pawlish da nga faux. mais c'est normal. lan moo tax yow bëgguloo wax ci ñi. parce que je ne wala dañ la menacer. menace pardon. mais mais mais mais mais mais mais benn benn instant maa ngi doon dégg am ñu may dégg ñu ni que bee passé bi nga génnee doon wax ci Mandiaye Seck ak euh, Bambaali Seck dafa am ñoo xam ne dañu ñëw fekk la sa kër di la di la xëbal ak di def seen affaire yooyu noonu dañu yóbbu sa fit bi. ma xale laa ne ñoom te bànn laa ne ñoom xam naa dëkk man kenn du ma xëbal. mais toj nañ sa sa toj nañ sa vitre oto. à cause de loolu. non non non non non ñu ma laal amuñu fit boobu. ah kon xam nga leen. yaa wax ay lan lañ ñoom. Oh, mais je connais même pas lan la def rugby wala basket je connais même pas Voilà. Lui def ay ay ay day day non superman Eh ne c'est normal La superman je connais même pas. émission bi euh, mu jeex je ah. <laughs> ne. <laughs> de. par exemple waa léegi yow sa stylu bopp bii nii kañ nga koy dindi. Eh, boo amee xam nga kan Diallo. kan xam naa eh, kan Diallo boobu am na photo kan Diallo am na photo boo xam ne tey buñ la ko génnee yéen ñaar ngeen naan teg parce que boppam mi nii la ko defoon. xam naa kan Diallo. ko ñu ñaaw nga. mën bi que Pawlish nag. man waaw waaw ñaaw moom yàqul góor te ñaaw ñaaw la baax la. su ma su ma ñaawee mais dañ ne boo ñaawee nga am mais yoroo. waaw su ma ñaawee seet naa nit ñi bëgg nañ ma da nga jàpp na nga set nii. ku ah. set du ñëw fekk plateau bu set nii. jël ay tànkam ak ko di kaw ñu noonu yow de léegi safar baa gën set. waa Pawlish émission mi ngi waaj jeex. léegi euh, xam naa ne xam naa ne safar ku xasaw la. Pawlish bul dugg foofu waxal sa mot la fin dañuy tëj émission bi heure bi xam naa ne safar xasaw lay sol kalson yi tilim lay sol. Mhm. xam naa ne safar ku ku tilim la ku forox la. parce que genre ay fari forox ngeen am parce que doo leen comprendre doo leen xam foo leen taxaw. ndox mi yow tàggatoo sax eh, waaw comme euh, ni ngeen ko gisee <clears throat> émission bi lii la woon à chaque fois moom bii bës day xool li nga xam ni moo leen neex ñu leen koy indil tey gis ngeen ne émission bi. dafa oh, oh, laaj waaw waaw waaw mais tey euh, ah. ki nga xam ne moom lañ am. ki nga xam ne moom lañ am. ñaafal nga

beneen bi ñaata far am yow ñaata far nga am a tontu yoon nekku ci beneen ah, bi mooy émission bi comme ni ngeen ko gisee tey euh, ay xool li nga xam ne moo koy indil mais euh, damay fàtte ma fàtte di remercier ki nga xam ni moo di Yaa Seyda cosmétique nekk fee nga xam ne moo di euh, Nord Foire di def li nga xam ni moo di maquillage yu baax yi ak li nga xam ne moo di bopp yu baax yi Yaa Seyda da nga nekkoon ci li nga xam ne moo di jaayu diw ñu ni déedéet Yaa Seyda dugg ci maquillage pareeguñ Yaa Seyda defar bopp yaa fekk xale yépp toog xale yi toog amatuñu dara xamatuñu fu ñu jëm dañ leen noonoo jaaxle jeex na dara amatu ñaara far ngam ñaara far ngam eh, yaa Seyda moo fekk xale yi toog yaa Seyda buñ leen noonoo sëngeem jeex na yaa Seyda kii ñaara far tey yaa ma def nii yaakaar naa ne ñaara far ngam yoon yemul ci benn te incha allah yu xasaw ñëw Pawlish Mbaye ay far yu xasaw la lan def yow dem ci yaa Seyda mu defal soin de que sa kanam gi laaj na ko ay ay faru xasaw la tilim xam naa ko xamante nañ Eh, ay faru barki yoo xamante ne su fekkoon ay faru tilim la ay faru yoo xam seen tànk yi day weex taal. xamante ne comme kan man dama ah, ah, ah yow xamante ne nag su ko ne même pas su su. yow Pawlish maa yow fii lañ tase di. yaa yow ah boo eh, boo waxloo waay. ah <laughs> bu ma waxloo de. waa léegi tàggatoon. képp kuy faram nag xam naa ne amul benn far wutal seddaay bi day ñëw jël leen carton yu set carton yu weex waaye moo sax amul moo amul kii moom moo amul gu moom. <laughs> émission bi jeex na. ñu ngi jeexul de amul allah. ku bëgg rek dañ ñëw amul gu <laughs> moo xam la am problème mu kii la am daal moom wutal rek.